jaam bi kum fa naqarlu ba ca kanam yàlla jëf ju ñaaw ja nga xam ne Israël fa koy def réewum Palestine ñañuy rey ak a fitnaal ba tax fa nekkoon awakaawu waa Palestine kooku nag du kenn ku may président Jomaay Fay ndaje mu mag bu OCI bañ doon amal ca Banjul ñeenti fan ak juróomi fan ci weeru mai bii ca la jëlee kàddu wane taxawaayam ci wetu askanu Palestine la Soleil yi ne kaay yeggee ñu ko leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne njiiti jëwriñ a nemmeeku fay dem réewum Mali réewum Burkina Faso réewum Niger ak réewum Guinée ba tax info yéen a kaay ne ci turu Pastef la koy xamalee kon Pastef fa ñoo jël beneen yoon libération na ko ñoom waa Pastef yi fa doon xamal ndaje réunion ci seen bureau politique ba ci la Ousmane Sonko demee yëkkati fa kàddu yi ni mel Vox Populi na Pastef kay teg ne ñaareelu jeego ginnaaw buñ jotee ci nguur gi buy wane ne ñoom ay panafricain lañu maanaam fa ñoo bëgg réewi Afrique toll nii wane neen seen bopp wax nañ li ñu doon ay panafricain lañ fa ñoo jox léegi bopp nag ay nit ñoo xam ne fa ñoo foqarti nguur ak lu ma la mën wax ndax Maleek Burkina ak yooyu fa ay bañkat a fa nekk de donte ay coup d'état def ñu ne détaay Ousmane Sonko fa wax ne Jean-Luc Mélenchon di ab tubaab français fay ànd ak délégation bu mag ñëw Dakar le 14 ba le 18 bi lépp ngir ñu amal waxtaan ci seen biir leer laneen lu leer ba yegg ca boo xam ne amul benn wax ñi ko doon attaqué campagne beeg ñëpp fa ñoo def muut indépendant yi ne kaay na ko yow fexe ko rek PDS xanaa xamoo fi mu nii mi ngi sëkkatal Jomaay Fay di dal si kawam na ko na gaaw lijjanti dund gu gi laas yéen a kaay na ko faale ci yokkal waa PDS ña ngay waajal seen bopp ci wote député yi fi mu toll nii fañ cey jiital Karim Wade le quotidien yéen a kaay na ko même bu dul PDS sax Benno Bokk Yaakaar fi mu nii Macky Sall ma ngi a dajalewaat na beneen délégation ca Kaffrine a kaay na faa lay leeralal délégation président Macky Sall boobu mu yebaloon ca daaka Medina Gounass na ca Macky doxalee rafetul de ndax fa écarté seppi ba mu set Amadou Ba bokk ca délégation ba gis ngeen Macky fa mel ni ba léegi moom mooy njiiti réew mi rek nam doon doxalee ba léegi dara soppeekuut ci te suñu waxantee dëgg fi mu nii ki jiite opposition bi ku jëkk ci Sénégal mooy Amadou Ba loolu la xel nangu di ndax moo topp ci jomaay ci wote yi weesu <laughs> lu leer ba yegg ca naññ ja mooy Bassirou Diomaye Faye é këram nga yëngatu na de de fa xam ñoo xam ne daal parti gisaguñ seen bopp ci yëf yi ba léegi dafa ñoo bëgg a mos source ay yéen a ko xamal ba tey yéen a ko xamal yor yor yéen moom fa ñoo xamal amal doxalin bu bees ngir gën a aar recettes yi ca douane mooy déclaration boobu ñuy amal ci wàllu importation yi ñu koy wax DPI yor yor yéen a kaay loolu lu baax la li baaxul nag mooy ay tooxi dana ñu ñu dénk alalu réew mi ñu sàcc ko ay milliards yi du xaaj du jeex te rapport OFNAC yi ak Cour des yi feeñal leen 24 heures yéen ci la xëy addu la mu xëy addu moom si du quotidien mooy coppite yi ñu war a andi ci wàllu ëtti attikaay yeeg tribunal yeeg prison yeeg yi ni fa na gaañu gaaw professeur Alpha Ndiaye na débat ci ñu xoolaat nit ku ñu teg loxo gardaaw yi nañ ko war a doxalee ak tëj kaso lu yàgg te àttewuñ la taxawal cour des comptes jëlee fi sénat andi fi séni ak yeneen yi ni mel loolu yëpp fañ ko war a waxtaanee andi ci coppite ñoŋal ko li président Diomaye Faye war a ñoŋal dëgg nag mooy fexe ba sénégalais yi mën a lekk ba suur naan ba màndi xam fu ñu dëkk maanaam ñu wàññi luyaas bi turbine yéen kaay ne lii daal la xaar mu xandi ci ay saafara bés bi yéen a kaay ne faa leen di wax mbuur kat xam a kaay lafa fa moo gën a garaaw téeméeri junne yoon hée gars yi fa ñoo suuf sa de séddoo ko am na koo xam ne moom fukki hectare ak ñett la xam président Diomaye Faye ne loolu foog nga ne jàmm la li yéene kaay moom fa xëy di laajte na waa kilifay réew mu bees mi fa mel ne daal waxuñ ci portugais yi dara xana lan tax l'observateur moom fa xëy àddu ci politique publique yoon wi nga xam ne fa lëndëm ci wàllu projet bii nga xam ne moom la ñu gaañ a ñi seen xam ngi cay joxe seen xalaat xalaatu Cheikh Niass njiital wal fajri ginnaaw bu wal fajri lakkee ba yàqu-yàqu yu xam fa bañ ko dalalee nag ca journalu RTS bu 20 moom Cheikh Niass ma ngay wal fajiri bu soobee yàlla fay taxawaat de dana génn ci jafe-jafe yu mu nekk réew mi yéene kaay moom fa jox kàddu Penda Mbow fa wax na jabaru président yi fañ leen a war di taxaw ndax moom lu ni la def ca kanam Marème Faye Sall fa ko doon jàppale nekk lu Marème wax rek mu a ko waaw de déedéet la mu ñu wax te ñëpp ne waaw moom yéene kaay bi di l'évidence mooy ne ziyaara Baye Mahmoud Niass bañ doon amal ca Kaolack ndangaan mbooloo mu bari ba jéggi dayoo foo ko natt rek weesu na ko Sénégal ba bitim réew fa fees del li ko waral mooy Baye Mahmoud Niass bañ doon defal ziyaara ba mooy magu Baye Niass ñaar ñoo bokk ndey ak baay xam-xam kilifa gu mag la woon wàllu yàlla bu mag njaboot ak Baye Niass gi fañ koo téye woon rawatina imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé moo jàng xatmu ba rakkaam porte parole bu Medina Baye Cheikh Mahi Ali Cissé moo doon def conférence ba fa doon waxtaan liggéey jaar-jaar dundinu góoru yàlla googu di Baye Mahmoud Niass ki nga xam ne nag mooy xalifaam tey di Cheikh Mouhamed Mahmoud Niass fa rafetlu teewaayu kilifa ya ak taalibe yi ak ni bi amee réussite l'observateur moom fa xëy àddu ci accident xamaat ci njeextale ay bés bii ba xam ñu ca faatu buñ moytuwul nag dana xam ñeneen ñu faatu ci ab accident boo xam naa xam ëllëg te ca pont la nar a xamee mandat yéen a kaay ne la ñu daloon ca batalo Joola suñ moytu danañu dal de pont ba fa màgget l'observateur moom fa ñoo xamal jëf ju ñaaw ñaari xale yu góor yoo xam ne fukkaat ak ñaar fukkaat juróom lañ am fa ñoo siif tëddee xale bu jigéen boo xam ne fukkaat ak benn la xam ñoom ñëpp ay xale leen ki jàpp saa Cees def ko ni xale du kenn ku may ëmma seen neexut ba neexut waaye ëmma ndaanaan la é démb daal ëmma seen fa jàpp saa Cees kurpeñ yu takkarnaase doon soxante ay kurpeñ dóorante yu métti combat bu neex waaye bi ko ëmma seen jàppee ba takk ko ba mu dëgër koo tegal siis bittéer bi la ko def daana ko ba jaaxaan ba tax suñu làmb yéene kaay ne neexu ba neex waaye ëmma seen buur la ca kër duuba lees ah fa jàpp Balla Gaye magu Sa Thiès mbuqi ko ñaari yoon Sa ñëw na fay fayul mag ja ëmma seen ne ko man du sa morom fu ko mbuqi bi muy bëgg a dee jël bu leer nañ ba tey yéene kaay bi ne Balla Gaye ak tafaatin fañ faa xamal jàkkaarloo bu saf sàpp nappante nañu mu mel ni seen combat ba dana neex waaye li neex démb nag seen kàddu ya moo ñoom ñaar fañ doon jéem a làkk ay yoo xam ne la